الحمد لله الذي أدار الوجود الحمد لله ci yàlla ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu bépp bindeef bu yàlla bind ci kaw suuf di wax ne baal leen ñu baal leen àq yàlla ñu yàlla boole baal ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ñu nekk ci weer boo xam ne weeri yërmande la weeri bënis la weer boo xam ne lu waay def benn yàlla def ko fukk kon day baax ñun yépp ñu delluwaat fuglu weer bi jéem a góorgóorlu bi bépp rëcc rëcc bu ñu amoon ca gannaaw ñu fexe suude waat ko yàlla man ñu jéggal suñu bakkaar jamono yi ñu toll ñenn ñi nee nañ weer bi feeñu ñenn ñi nee nañ weer bi feeñu lépp rek ñu delloo ko suñu borom waaye dana wa mën a doy ab jullit ñu ne la yenent sallallahu alayhi wa sallam ab sàmm romb na ko ne ko e yaa rasulullah man gis naa weer bi yonent bi sukkandiku ci woor weeru koor boobu kon dana doon ab jullit mu roy lu mel noonu loolu nag liñ ciy jàngee mooy am njort bu rafet ci jaami yàlla yépp comme que ab yonent ab sàmm la gis am ci moom njort bu rafet rawatina ñun ñu jàpp ne kii ab jullit la te dégg nañ ne gis na weer bi ñun loolu war nañu mën a doy ñu ko ci woor ñeneen nag ndax ki ko wax ku jub la wala ku wóor la pour man boo ko lu ñu doy dalay indi beneen problème l'essentiel ni ki ko wax na doon jullit rek bu dee li mu wax du dëgg te yow woor nga doo ci am benn bakkaar bu dee li mu wax dëgg la boo wooree am nga ci tiyaab kon nag na ñëpp bàyyi ci xel ci loolu te ñu xam ne weer bi yàggul trente jours kese la képp ku nekkoon ci ay torof tolof ay ñol-ñol na xam ne weeri ñaan la na woor di ñaan yàlla yàlla baal ko bépp bakkaaram yàlla dimbale ko lu mu fekkoon mu koy def ci li nga xam ne lu yàlla tere mu jaar fii bàyyi ko kon loolu mooy suñu waxtaan bi nga xam ne dañu ubbee weer koor waxuñ nag ñi woorut nekkuñ ci dëgg waxuñ tamit ñi woor ñoom kese ñoo nekk ci dëgg l'essentiel mooy képp koo xam ne gis nga amatoo droit ñàkk woor woor nga war def képp koo xam ne tamit gis nga ku gis kooku nee na gis na te wóolu nga ko amatoo droit ñàkk woor woor rek moo la war fas nañ yéene continuer ak yéen ci waxtaan yoo xam ne waxtaan yu jëriñ lay doon ñu koy tuddee xissa ñu ngi koy def ci benn site bu mag boo xam ne ràññeeku na ci bilib réew wala ci béléb àdduna te moom mooy ci Dakar yal na yàlla barkeel leen yokk seeni mbir waxtaan am solo incha allah bu ngeen ñu toppee da ngeen ko ci am ñu jàppalante ci xam-xam yal na ñu yàlla dimbale may ñu dégg ak toog asalaamualeykum wa rahmatullahi wa